asalaamaaleykum man maa ngi tudd Ibrahima Seck nekk ki nga xamante ne dafay lëkkale kuréel bi nga xam ne mooy toppatoo mbay mu sell te mucc ayib ci senegal ñu koy wax FENAB kuréel googu dafa nekk kuréel goo xam ne tey jii mu ngi fii Kër Matar Aram fekk si fii soxna Ndey Diop ak ki nga xamante ne magam la tudd Ami Bey ñu nekk tool boo xamante ne juróomi hectare la hectare mooy téeméeri mètre yoo xamante ne wet gu ni téeméeri mètre am nañ ci juróom fii gis ngeen ay darkasa gis ngeen fi yeneen xeetu garab lii ñu gis ne suñ borom nii lay bayee suñ borom du def menn wirgoy mbay fii ba ojo menn wirgo rek déedéet suñ borom bu yëkkatee jiwam sànni garab gu njoolo nga fa gi digg doomu si ngajj day warale wirgoy mbay rab yi ñëw di fa neefare tàngoor bi ànd ak tàngooru eh, jamono bi muy nekk loo xam ne day tocc suuf si maam yi mbayu maam yooyu maam yi bàyyee woon nañ ñun mooy suñ kenuk mbay ndax maam yi li ñu bàyyee mooy jikko yu baax ngor jom jomb jomlu nangoo liggéey li nga yéene sa bopp nga yore ko sa morom amuk yërmande waaye yërmande ci doomu aadama waaye yërmande ci mala ak yërmande ci gàncax yi ci garab yi lo tooke waaw ñun nag li ñu gis ne mbay moomu tey moo faagaaga lépp lu fi nekkoon mbay moom gis ngeen ne suñu yamb yi wàññeeku nañ mbay mee leen mbayu tooke mi moo leen wàññi mbayu tooke boobu moom moo wàññi picc yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ak i njanaaw mbay moomu moo rappal suñ suuf si suñ suuf si rappal na gis ngeen ne càmm gi gapparleku na gis ngeen ne géej gi kaaya na ni nga xamante ne yoon woowu ñu jël du yoon wi nga xamante ne mooy yoon wi jub ngir ñun gis nañ ne tey jii liñ naan ñu am ceeb bu doy ndax man suñ bopp ndax ku man sa bopp moom sa bopp baax na naam waaye man sa bopp na fekk nga ànd ak wér yaram loolu lañ ne waalo mën naa nekk béréb bi nga xam ne fa tabarakallaahu meññetu senegal yëpp fa lay jóge a ah, nañ xam ne lépp loo xamante ne tàndarma la lépp loo xam ne banaana la lépp loo xam ne koko la lépp loo xam ne meññal la muy sorance muy loo xamante ne lépp loo limon lépp mën naa ñor partebar kàlla waalu ndax suuf saak macha allah ndox mi am na fa. ngeen daje fii def ay travaux. léegi nag ñu tey ñu daje fii ngir seet nu ñuy mën a defee xàll aw yoon ay cëlëka ñal yoo xamante ne danañu dimbale ëllëg ñu xam fu ñuy jaar xam yoon wi nga xamante ne moom lañuy jël. ngir may mu sell te mucc ayib fii ak ñaar fukki at muy mbay mi nga xamante ne mooy sax ci senegal mooy mbay moo xamante ne mooy joxe wér-gi-yaram mooy mbay mi nga xam ne mooy joxe yëkkateeku doomu aadama ko sax dàkk muy développement durable yàlla na ko yàlla def ci Sénégal waaw. ah. waaw waaw man li nga xamante ne moom lay wax mooy zone des Niayes tey gis nañ ne am na zircon am na ilménite am na tourbe am na phosphate am na weer weer yi nga xamante ne suñ kaas yi ñuy ndekkee gi ñuy lekkee yëpp mën nañ ko fa jëlee am na yeneen xeetu ay gànjar yoo xamante ne yàlla def na ko fa ñu koy wax ressource minière yoo xam ne xëj na xamaguñ ko kon nag waajal ko jot na nañu gis def benn kuréel goo xamante ne gëstukat yi dañ ci nekk borom xam-xam yi nekk ci baykat yi nekk ci nappkat yi nekk ci sàmmkat yi nekk ci nguur gi nekk ci ñi ñuy wax ñi nga xam ne féete wuñ ci nguur gi muy ONG société civile bokk ci waaye taskatu xibaar yi bokk ci ndax ñu xoolaat mbir mi ndax ëllëg ragal nañ alal ju bare bare bare bare macha allah dana fa feeñ liggéey yu bari danay am waaye fan la ñuy bayeeti waaye nag suñ xale yi lan la ñu doon ëllëg ndax waruñ faa def ay daara yu mag yi nga xam ne moom la ñuy wax université yoo xamante ne xalaat yooyu yëpp war nañ ko faa génn ndax waruñ faa def foo xamante ne ñu yore kaaraange réew moom mooy camp militaire ndax waruñ faa ñi nga xam ne mooy force de sécurité et de défense waruñ faa nekk lépp mu bari ndax ëllëg ndax loolu réew mu am gis nañ ne am na ay juyoo yoo xam ne am na fa te it ah dañuy fexe waajal ko ba léegi nguur gi mi ngi ñuy tànqam lalu ci mbay mu sell te mu ci ayib nguur gi naa naam léeg-léeg mu wax ko waaye amul benn jàppale bum ci def ñun nag ñi ngi ko naan nguur gi yoon wi nga am du foofu ëllëg de mbay mi nga xam ne moo mën a yóbbu senegal ca kanam mooy tax ñu am dund gu doy dund gu doy googu suñuy ñoñ ñi ñëw ëllëg buñ ñëwee am ko ñaareel bi gànjar yi ñu yore ko yorin bu baax suñuy ñoñ buñ ñëwee mën ko fekk mu baax ñu koy wax ressource naturelle loolu mooy yoon wii ñu wane mooy mbay mu sell te mu ci ayib yàlla na ko yàlla saxal ci senegal Père màgget Diop je la secretaire général de la FENAB la fédération nationale pour l' agriculture biologique. Mhm. waaw li waral suñu tànk yi tey fii mooy dañu bëgg a taxawal dañu bëgg a benn plan stratégique national boo xamante ne day dem fii ba deux mille vingt cinq ñu ni plan boobu nag bu ñu koy taxawal du ñu toog rek ci bureau yi woo nit ñi di ko waxtaanee ak ñoom mais dañu bëgg a wàcc ba ci base bi recueillir les données xool yan système de production yi la nit ñi am habitude di def ñu jéem a fexe ba système de production yooyu ñu dajale leen tënk leen man ci tëgg plan boo xamante ne ñëpp lañ ciy gis seen bopp. moo tax ni actuellement ci tournée la ñu jóge dem nañu Casamance am fa ñaari fan ñu dem Tamba am fa ñaari fan ñu dem Waalo am fa ñaari fan tey di war a mujj fii ci région de Thiès ak Dakar pour war fee am ñaari fan mais duñ wàcc duñ toog rek ci bureau yi dañuy wàcc ci suuf fi nga xamante ne fi la nit ñi di yëngutoo ñu jéem a xool yan système de production moo fi am ca maam ya ba nëgëni si nan lañ daan doxale ak léegi ni ñu doxale ñu mën a nag tëgg suñu plan boo xamante ni dañuy ñaan yàlla Euh, parce que suñu yeneen naataan réew yi aussi ñoom ñi ngiy tëgg ñu ñaan yàlla plan wu Sénégal nekk plan bu mucc ayib. fi mu nekk nii lan ngay lan ngay ñaan gouvernement bi par rapport ak gàncax gi ni ñuy utiliser yi ak engrais yu bon yi. waaw gouvernement bi moom li ñuy wax moo di mu xam ni dafa jaboot soo jabootee da ngay am ñaari njaboot ñaari jaboot yi am na ñoo xamante ni convention la ñu gëm mu jàppale leen ci mais am na ñoo xamante ni. Mmh. am na ñoo xamante ni convention bi lañu gëm xëy na mu jàppale leen ci waaye waaye nag am na ñoo xamante ni gëmuñu convention agriculture biologie la ñu gëm kon tey dañ koy wax mu jàppale ñu ci mbay mi nga xamante ni mooy mag agriculture biologie te ñun vraiment mooy mbay mi nga xamante ni moom la ñu gëm te moo mën a jëme kanam euh, réew mi ndaxte moom mooy sàmm suuf si mooy sàmm gànjar gi nga xamante ni moo fi nekk mooy sàmm wér gu yaramu doomu aadama yi kon vraiment dañuy ñaan nguur gi mu jàppale ci gouvernement alali ñëpp la yor ku yor alali ñëpp nag booy séddale séddal ñëpp